sëriñ moor faati Touré sëriñ moor faati Touré mi ngi gane àdduna ci atum 1873 ci dëkk boobu di xaan li tax mu ganee àdduna ci dëkk boobu di poroxaan xam ngeen ne ba Jaxu Ba woote woon na fi ab xeex ci dëkk boobu di somm ci histoire bu mu amoon nag séeréer yi tubaab bi duggoon ci mu woowoon bépp kilifa diine ngir mu ñëw foofa ca somm ngir ñu jàmmaarloog noon yi ñuy xeexal ba benn noon du leen mën a ëpp doole wala mu leen di faagaagal ca booba nag mboolem kilifa diine yi nekkoon ci réew mi ñu ci bari wuy ji woon nañ Maba ngir comprendre ko ci woote googu muy woote waajuru sëriñ Mor Faati Touré mi demoon na wuy ji ànd ak njabootam ñu koy wax sëriñ Abdoulaye Touré foofu nag ci dëkk boobu di poroxaan wala ci dëkk boobu di som foofu la gisante waate kii di mammoor anta sali mbàkke miy waajuru soxna faati anta mbàkke mammoor anta sali mbàkke fam na wóllëreem bii di sëriñ abdoulaye jox ko doomam jii di soxna faati anta mbàkke ngir mu dëkkoo ko mi bokk sëriñ xaafiya mbàkke ak maam cheikh anta mbàkke ak sëriñ mbàkke anta ak soxna anta sali mbàkke anta benn waajuru jigéen muy soxna anta njaay mbàkke ci la sëriñ abdoulaye Touré mii jëlee soxna faati anta mbàkke mi nekkoon taawub mam maam Mor Anta Sali Mbàkke dëkkoo ko foofu ci poroxaan ba am nañ fa sax lii di ak njaboot ci la itam doomam ji gane àdduna di sëriñ Mor Faati Touré sëriñ Mor Faati Touré am na ñu bokkal soxna Faati Anta Touré mii ak kii di sëriñ Abdoulaye Touré ñu ràññee ci soxna Xujja Touré bintu soxna Faati Anta Mbàkke ak kii di sëriñ Abdoulaye Touré am na keneen itam ku mu bokkal kii di soxna Faati Anta Mbàkke ak kii di sëriñ Abdoulaye Touré ñu koy wax soxna Ami Touré soxna Ami Touré mi bi matee dem kër Longoor Mbay lañ koy yóbbu woon soxna xujja ture mi bi matee dem kër sëriñ moodu faa jama ñang lañ ko joxoon ci kër ñang am na ñeneen ñum bokkal waajur wu jigéen te bokkuñu waajur wu góor muy ku ñuy wax soxna busa ture bintu soxna faati anta mbàkke ak kii di sëriñ moodu faati ture am na keneen kum soxna faati anta muy ku ñuy wax soxna faati ture bintu soxna faati anta mbàkke ak kii di sëriñ moodu faati ture ak ku ñuy wax sëriñ baara ture ibnu soxna faati anta mbàkke ak sëriñ moodu faati ture sëriñ moodu faati ture mi mii nag rakku waajuru sëriñ Mor Faty Touré mii la di sëriñ Abdoulaye Touré bi sëriñ Abdoulaye Touré wàcceeb liggéey ci poroxaan la ko Mamor Anta Sali joxaatoon sëriñ Modou Faty Touré mii ci la ci amee ñetti doomam yi muy soxna Bousso Touré soxna Faty Touré ak sëriñ Baara Touré sëriñ Baara Touré mii lañ joxoon soxna Astou Gawane Mbàkke soxna Faty Touré mii lañ joxoon El Hadji Ibrahima Diabu Daaru Salaam kaneen ki mbokkal waajur wu jigéen te bokkuñu waajur wu góor ñu koy wax soxna Bousso Touré mu bi jur sëriñ cheikh saaliw bala ñoo wéy sax ci sëriñ moor faati Touré ñu wax leen tuuti ci histoire waajuróom wii di sëriñ Abdoulaye Touré xam ngeen ne bi mabba wootee ci xare boobu wuy ji woon na ko fa ngir dem fas yéene jàppale mabba ngir aarale boppam ndax lool kat la màbba sàkk woon ci ñoom ci xare boobu amoon foofu ci som ba mu fa eggee kii di Mamor Anta Sali foboon na ataawam jox ko ko muy soxna faati anta mbàkki mi ba am nañ sax lii di ak njaboota waaye moom sëriñ Abdoulaye Touré ci xare boobu nag la mujj des dafa am biskat muy doxantu lii di ay waay dogaale ko agressé ko ci biir agression boobu nag ci la jëlee ay gaañu gaañu ca gaañu gaañu yooyu nag ci la mujj ñàkk lii di bàkkanam moom sëriñ Abdoulaye ture ñu fopp rakkam ja sëriñ Muudu Faati Touré mi nga xam ne nii ñoo bokk benn waajuru góor ak waajuru jigéen joxaatoon ko nag kii di soxna Faati Anta ngir mu denc ko comme soxna sëriñ Abdoulaye ture moom laata muy làqu ku amoon diine la ak ngor ba sax ñu bare bare bari daanañ ko roy ci melokaan wi mu amoon ba tax na sëriñ tuuba seexul xadim bind na benn risaala ngir doon xool jikkoy sëriñ abdoulaye Touré ngir adressé ko risaala booba risaala boobu seexul xadim doon xoole jikkoy sëriñ abdoulaye Touré ngir fas yéene ko bind ca téere booba di risaala ngir loon ko sëriñ abdoulaye ture seexul xadim ba muy tëj lii di téere boobu di risaala ba ma ngay wax ni ku tudd axmadu sàll moo ko bind ci tund wu ñuy wax poroxaan ci suuf suñuy wax rib booba axmadu sàll mii ko bind mi ngi toll ci ñaar fukki at fàttali ne kii di sëriñ Touba Seexul Xaddim sëriñ Ahmadou Bamba Sall bu Saalum lañ ko tuddee kon bi muy tuut tànk daanañ ko wooyee Ahmadou Sall moo tax bi muy bind loolu di risaala ba ma ngay wax ne ku ñuy wax Ahmadou Sall moom moo ko bind risaala bii na ku ko bëgg a gis soo demee ci Madina ture ci dëkkub sëriñ Mor Fati Touré fañ ko denc ñu wan la risaala ba Seexul Xaddim moo ko bind wax ni mi ngi poroxaan booba ci ñaar fukki at la toll ku bëgg a gis risaala bii nag soo demee ci njabootu sëriñ Mor Fati Touré ñu wan la mbindum Seex seexul xaddiim kon sëñ Abdoulaye Touré mi ku ñu nawoon la ndax seexul xaddiim defoon na ci moom référence ba bindub risaala kon sëñ Abdoulaye Touré mi itam mi ngi poroxaan ñu denc ndax kat ci xeex boobu lañ ko agressé ba mu mujj am ci ay gaañu gaañu ñàkk bakkanam doomam jii di sëriñ Mor Faati ture mi nga xam ne ni moom moo ko meññi wéy nag nekk poroxaan ci rakk waajuram wi di sëriñ moo du Faati ture mu nekk fa ba ni xeex bi jeexee ñu jóge fa nag ñibbisi waata ginnaaw bu ñu ñibbisee nag kii di rakk waajuram moo ko dëkk bu ñuy wax lappe lappe mi ngi ci wetu cilmaxa dend ak dëkkub sëriñ cheikh sidi moxtaar bi ñuy wax kër ngànna foofu lañ yóbbu woon sëriñ mor faati turé ci sëriñ bu ñuy wax sëriñ moxtaar turé mareema mu nekk fay jàng lii di alxuraanul karim sëriñ mor faati turé sax yàggu fa dara laata muy mokkal alxuraanul karim jóge na fa ñëwaat nag ci nijaayam maam cheikh anta mbàkke bi mu egsee maam cheikh anta mbàkke nee na ko demal jaayante ku bax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim kon nag ma wax leen sëriñ mor faati ginnaaw bu seexul nekkee nijaayam ba noppi naka la def ba jaayantee ku baax ki sëriñ tuuba seexul xat xaddiim nekku murit ginnaaw bu waajuram làqoo ci poroxaan rakku waajuram yoroon waajuram di sëriñ moodu faati ture ginnaaw buñ jógee poroxaan mu yóbbu ko ci dëkk bu ñuy wax lappe nekk ci wetu cilmaxa dend ak dëkk bii di kër ngànd ak ngoog sëriñ seex sidil moxtaar mbàkke ci baneen waajuram bu ñuy wax sëriñ moxtaar ture mareema sëriñ moor faati ture nekk fay jàng alxuraan ci diir bu néew maam cheikh anta mbàkke maam cheikh anta mbàkke nee na ko demal jaayanteeg sa nijaay ja sëriñ tuuba seexul xaddim soo eggee nag dana la laaj ba xam fan la sam njàng toll waaye nee ko rek dama la bëgg liggéeyal saa bu la laajee daal tontu ko loolu sëriñ moor faati turé wéeyal waxi nijaayam jooju di maam cheikh anta mbàkke dem seeti baneen nijaayam bu mag ba di sëriñ tuuba seexul xaddim di ko wax ni dama bëgg jaayante ak yow sëriñ tuuba seexul xaddim wax na ko comme loolee ko maam cheikh anta mbàkke waxoon dana la laaj fan la sam njàng toll mu laaj ko ko sëriñ Mor Fatou di ko xamal ne man daal liggéeyal la rek mooy li ma yitteel seexul xaddim nag laaj na ko ko ñetti yoon mu tontu ko loolu nijaayam di sëriñ Touba seexul xaddim nangul na ko ak jaayanteem sëriñ Mor Fatou Touré nag nekkoon na ci daara ji jiy muritu ba bi maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridina jotee lii di ngërëmam daara mu yoroon kii di sëriñ Mor Fatou Touré moo ko fa wuutu kon bi maam Cheikh Ibrahima Fall yeewi ko sëriñ Mor Fatou Touré lañ jox daara ja mu nekk jëwriñ ja fa ni mu jotee ngërëmam ci nijaayam ji dib sëriñam sëriñ Tuuba Seexul Xaddim mu delsi waat ci loxoy nijaayam maam Cheikh Anta nekk fa ginnaaw bi sëriñ Tuuba Seexul Xaddim bàyyikoo na fi dem ci géej gi ci xaqat yum amoon nag tubaab bi booba itam sëriñ Mor Faati Touré mi ci loxoy nijaayam maam Cheikh Anta Mbàkke ci Daaru Salaam fa nekk ba ni sëriñ Tuuba Seexul Xaddim ñibbisee ci 1902 te 1903 bi nag ñëw na ak ngan ci dëkk bu sell bii di Daaru Salaam ngir ganal si rakkam ja jarbaatam bii di sëriñ Mor Faati Touré itam gisee na fa ak moom mu wéy nag àndaat ak moom fépp fu Seexul Xaddim gim nekk sëriñ Mor Faty Touré mi ànd na fa ak moom ci diirub lim fi nekk laata muy dem gànnaar bim delloo gànnaar itam sëriñ Mor Faty Touré daana ko fekk si ndax kat leen fàttali ne sëriñ Mor Faty moo nekkoon loxob ndey jooru kii di maam Cheikh Anta Mbàkke ba tax na yónnin yu bari sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim daa yónni diggante sëriñ Mor Faty Touré la El Hadji Njoogu Njaay ak kii di maam Cheikh Anta Mbàkke Seexul Xaddiim dem gànnaar 1903 1907 sëriñ Mor Faty Touré daana fa dem lu bare bari ci ay yónneen yu ko Seexul Xaddiim yónni wala ay yónneen yu ko maam Cheikh Anta Mbacke yónni 1907 ca yéen jolof ca yéen jolof itam na fa dem lu bare bari ci yónneenub Serigne Touba Seexul Xaddim wala yónneenub nijaayam ji di maam Cheikh Anta Mbacke 1912 njaareem njaareem googe naka noonu daana fa dem lu bare bari ba mujj gi sax Serigne Touba Seexul Xaddim wutaloon na ko fa kër ci kër gu mag mooy këram mu féete penku jumaa ji Serigne Mor fa Touré amoon na fa kër ngir fas yéene jege gum fas yéene jege Serigne Touba Seexul tubaa seexul xaddim sañculoo na mag ñu bari lii di ay dëkk sëriñ Mor Faty Touré itam muccul woon ca sañcum dëkk yooyu ci la dem sañcee dëkk bu ñuy wax fay pay pay pay nag mi ngi ci wetu dëkk bii di ndindi buggul mu am bis sëriñ tuubaa seexul xaddim soxla sëriñ Mor Faty Touré di ko wërlu waaye xamul fan la nekk ñu di ko laaj ba mujj gi daal mag ñi ne ko mag ci dëkk bu ñuy wax pay pay ndax foofa la nekk seexul xaddim laaj pay pay fan la nekk ñu ne ko mi ngi ci suuf si di salaam seexul xaddim ne nañ ko li jëkk yi di sëriñ Mor Faty Touré egsee nag la ko seexul xadim di ko wax ni foofa kat dafa ruqe te liñ lay soxla dafa bari kon nag wutal faneen foo nekk ndax ku la soxla man laa gis ginnaaw bi nag la ko seexul xadim waxe ne dellul Touré Ndula sa dëkkub maam nga nekk fa ku xëyee Touba jëm si njaareem yendul la ku gonte njaareem jëm Touba fanaanal la moo tax bi sëriñ Mor Faati Touré ñëwee Touré Ndula yeesalaat Touré Ndula bënn fa ab teen nekk fa nag di liggéey ci ndigalul sëriñ Touba seexul xadim foofu la nekk ba ni sëriñ Touba seexul xadim génnee àdduna ci atum 1900 1927 bi seexul xadim di génn àdduna sëriñ Mor Faati Touré mi ngi ci dëkk boobu di Touré Ndula mu fab léppam jox nijaayam maam Cheikh Anta Mbàkke di ko xoole xaadim rasuul boole kook nag di taxawu bu baax xalifa général bi fi nekk di Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke mu nekk na ku maam Cheikh Anta Mbàkke doyloo ba ci atum 1928 bi maam Cheikh Anta Mbàkke di aji ànd ak sëriñ Mbàkke Bousso Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke sëriñ El Hadji Tàkko ak ñu bare bari ca yoon wa booba ci aj googa kii di sëriñ Mor Faati Touré 1929 la aji kon bokk na ci murid yi njëkk a aji ci màkkatal mukarrama ca yoon woowu sax mu doon demee màkkatal mukarrama ci atu 1929 ci atu 1928 ba kii di nijaayam maam cheikh anta mbàkke bi mu demee màkkatal mukarrama bari na bagaasam yoo xam ne ñibbisi waatut ndax da ko faa bàyyi woon ci aju 1929 bii nag la sëriñ Mor Faati Touré demee màkka indaale bagage ya ci bi muy dem màkk ci atu 1929 kii di sëriñ mbàkke busa bindoon na lettre kilifay naar yi nekk foofu ci arabie saoudite di leen wax ne gor mi ngi noonu jamono bi ñëw mbokk la te ku sàmm diineem la na ngeen ko fonk nag ndax ñun ñi fi ñëwoon daawkat kii fi ñëw jarbaat la ci ñun ñu teewloo lettre bi sëriñ mbàkke bu sa bindoon naar yi ngir jox ko sëriñ Mor Faati Touré ngir bu demee màkkatal mu karama bañ fa am benn jafe-jafe alhamdulillahi allati ja'ala al arwaha junuudan mujannada fa ma ta'arafa minha iktalaf wa ma tanakara minha ixtalaf salaatu wassalaamu ala afdali man wa axaa fi'atayni fasaarata ka aqrabi alxuraabati wa ta'arafa bihim adaamimum خطبت كلهم السوق غرابة وبعد فأزكى تحية وأنما سلام يليقان بجانب الصادات الأعيان المتصفين بأوساس الكملاء والقدماء في هذه الأوان ذوي المناخب الصاهرة والمسايا الزاهرة سيدي الشيخ الصالح والشيخ عبد الله والشيخ أحمد خيرق آل مرشد الأمجد موجبه أوجب الله لنا ولكم الغيرة وعافانا وإياكم وصفى لنا ولكم الميرة سؤالنا عن حال من حفظه مجلسكم السني الأهل والإخوة والأولاد خاصة والإخوان والجيران عامة وخصوصا أخاكم المشروح خفف الله تعالى عنه وابن أختكم السيد الحسن بن حمزة الفلاني ولقينا هنا السيد حمزة المذكورة مستفسين بلقائه فهو على خير ونخبركم بوصولنا جميعا إلى الأهل سالمين وغير آمنين كما دعوتم لنا بهما فجزاكم الله تعالى عنا غيرا وأدامنا وإياكم عليه وجعلنا من المخصوصين لديه فقد كنا تديد الاستياخ إلى الحج والعمرة ثانية لكن الأثقال والحوائق أعغضنا عن ذلك فابننا حامل البراوة ذا الغرابة منا محمد توري ابن شقيقة الشيخ الهاج سيدي المختار المبكي وابن خالة ابني المحب الحاج مولاي علي المرشودي وابن عمة الشيخ الهاج محمد الخاضر المكي وهو أديب قريب موافق في كل ما هو فيه خير ومغالف في الجد فابذلوا جهدكم في الاحتفال به وقوموا في مصالحه مع أحسن ملاطفة ومعاملة كما هو دأبكم مع أمثاله ولا تنسونا من صالح دعواتكم المرجوة الإجابة أمام خير العباد محمد بن محمد المشهدي Serigne Mbacké Bousso bindaatoon na beneen lettre joxaatoon ko Serigne Mor Faty Touré ngir mu joxal ko ko soxna suñuy wax soxna Xadi jatu sëriñ mbàkke sa ma ngi koy wax ca lettre ba di ko wax ne juróomi junni yi maa la ko jox ngir di la ko ziyaare boole kook nag di la dénk kooku di sëriñ moor faati ture ngir nga xam ne mbokk la soxna siidil soxna xaddi jatu na keroog bi sëriñ mbàkke buso demee màkk ànd ak maam cheikh anta mbàkke ak kii cheikh mamadul faadal mbàkke hôtel bi mu daloon moom moo leen ca doon toppatoo ñu teewlu lettre boobu wasalaatu wasalaamu ala afdali man labba wa taafa wa salla xalfa wa rama aljamraat baada wa daa وعلى آله الشرفاء وأصحابه الغنفاء وبعض فإلى السير في السالحة الصفية البرة قضية المرقدية المرضية مناخ وفد السنغال الحجاج بالحرم الشريف الخائمة بأمور الطائفين منهم حول المسجد المنيف بارك الله تعالى وداعف له الأجور وواقانا وإياها فر كل من يدور وبعد السؤال عن الحال وحال الأولاد والإخوة والعيال إعلامك بأني على غير ومشتاقون إلى تلك البقاع الطاهرة ذوات الخصوصيات الباهرة وقد عاهدنا في هذا العام عوائق الثمن وجهنا إليكم هذا الغريب محمد توري وهو ابن دقيقة الشيخ إلى سيدي مختار اللكي وابن خالد النجلي الهاجي مولاي علي المسعودي وابن عمة الشيخ الهاج محمد القاضي المكي ليحجر البيت الحرام ويسور روضة خطوة الكرام عليه الصلاة والسلام فاعتنوا بشؤونه وتحملوا جميع مؤونه فقد ارتحلت من بلدكم الأمين إلى مودعتكم بسبب استحجاج القوم لأنهم وجدوني في الحرم فعجلوا علي الخروج إلى جرب أول ركوب السيارات فلم يكن الوقت لموادعتي وكنت إذ ذاك عازما على إهداء شيء إليكم ولو غلة ولذلك جعلت في يد الحامل خمس جنيهات هدية لكم أرجو قبولها منكم وأسلم خاية السلام على الولد المجيد السيد إبراهيم الحبيب وشقيقته خرجة وأخته وأخواته وأخواله محمد وأحمد وإخوتهما وجاركم الحاج عمر تال وجميع الإخوان والجيران وأوصيك يا برة بأن تأمري بابنك بهان أن يلازم أن يلازم لازم سنة السادات المالكية والنقل عنهم والأقش منهم حتى يبلغ في مسجد والده المرحوم السيد عبد الواحد فبذلك تتم إمامته لأهل السنغال وهم مالكيون واختلاف المذاهب ربما يؤدي إلى التناكر والتنافر والعياذ بالله أسها وصية ناشهم آمين محمد بن محمد المشهد Serigne Mbacke Bousso joxaatoon na beneen lettre Serigne Mor Fati Touré di ko wax mu joxal ko ko Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima nag boroom xam-xam la woon bi Serigne Mbacke Bousso demee mag màkkatal mu karama doon na ko wax ne danaa dikk Sénégal ngir gane si la sëriñ Mbàkke Buso ma ngi koy wax ne ngan nga ba nëg ni da maa ngi koy xaar waaye xam naa ne xat-xati aj gi ak yooyu moom moo la jàpp waaye nag maa ngi lay ziyaare lu baree bari am na nag ay téere yoo xam ne mi ngi foofu sëriñ Mor Faati Ture mi bëgg naa mu indaaleel ma ko ñu teewlu leetar bi alhamdulillahi lazi sarafa ahli alxaramayn alsharifayn wa qassahum bi mujawarati afdali alxalqi wa sayyidi alkawnayni wa salaam المنورة ومن إسدان ببهجته روضة المطهرة وعلى آله الصلاة النقباء ورشح به الجهادست النجباء أما بعد فسد أحسن تحية وأثنى سلام بتبجيل واحترام إلى سيدي ومولاي الشيخ الحفاظ وفقامة الشيخ الإسلام طلي وحبي الهمام الفسيح البليغ الشيخ إبراهيم فالموجب بعد تقضي تربة نعالكم وسؤال عن سائر أحوالكم إشعاركم بأننا وصلنا بحول الله وقوته لبلدنا ظالمين وغانمين ووجد الأهل والجيران على خير وعافية وأصفى ميل ونعمة ونعمة ضافية ولم نزل نشتاق إلى لقاء من توجه من ناحيتكم وورود مبحوث كتابكم حتى ألقي إلي الكتاب الكريم وقبلناه بالتعظيم وذلك يوم لنا يوم عيد وسرور وفرحة وحبور فأنشأنا الشعر نقول فإني يوم وافاني كتابكم ورحت لا فرح صحة المفكوك من شفدي فلا برحتم على بسر النفوس بكم من الإله دواما أكسل السفد وقد كنا نتوقف ونرجو إنجاز ذلك الوعد من زيارتكم لهذه الجهة فلما عرب أشهر الحج علمنا أن ذلك لا يمكن استغلالكم بأمور الغرباء الواردين فالله تبارك وتعالى يمن علينا بلقائكم آمين وهذا عامل من قريب قرابتنا لأن الشيخ إلهي سيدي المختار البكي رقيق والدته وهي خالة ابن أشيركم الحاج مولاي علي المشربي وحمة الشيخ الهاشم محمد الفاضل المكي توجه إليكم ليحج البيت الحرام ويسور خير الأنام عليه الصلاة والسلام فاحتفلوا به وابذلوا جهدكم في الاعتناء بشأنه كما هي عادتكم مع أمثاله محمد بن محمد المشربي kon loolu rek day dëggal ne ci atum 1928 bi maam Cheikh Anta Mbacke di aje ànd ak Serigne Mbacke Bousso ak kii di Cheikh Mamadou Fadal Mbacke Serigne Mor Fati Touré demul woon ca yoon woowa te déwén sa ci atum 1928 59 la aji kon lii rek day firndeel ne lii ay lettre la yu sëriñ Mbàkke Buso bindoon ngir yóbbante ko sëriñ Mor Faati Touré ci aju Màkka googu te bari na bagage yi maam Cheikh Anta Mbàkke yoo xam ne nii ba mu ko jëndee ca yoonam wu njëkk ko ci 1928 indaaliwu ko sëriñ Mor Faati Touré moo ko indaale ci aju 1929 googu sëriñ Mor Faati Touré wéy nag di sanc lii di ay dëkk ci atu 1928 sanc na dëkk bu ñuy wax jam weli jam weli googu sax moom lañ tuddee tuubaa Touré daaray alxuraan la di jàng ka jàngale moom mu faboon ku ñuy wax sëriñ ibrahima jaxate ibnu sëriñ xaali biraama jaxate ngir mu nekk fay jàngale lii di alxuraanul karim ci atum 1930 ginnaaw bu mu jógee màkkatal mukarrama sanc na dëkk bu ñuy wax màddinatu mi ci wetu dëkk bi di misir ak maam balla suuf sa ku ñuy wax sëriñ cheikh asta wàllu mbàkke ibnu mamoor jaara moo ko ko jox ci dëkk bi sax la génnee àdduna ci atum 1960 kon mu wiy nekk nag ci dëkk yi di liggéey di yar mbooloo miñ ko la ay nijaayam nekke muy sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim ak kii muy roy ci yoon wi di maam Cheikh Anta Mbàkke ba ni mu génnee àdduna ci atum 1960 sëriñ Mor Faati Touré amoon na kër itam ci dëkk bu sell bi di Touba laataa ñuy nat dëkk bi fii daaray kaamil nekk këram la woon biñ nattee dëkk bi nag lañ ko toxal ci ginnaaw daaray kaamil kon foofu la kër gi nekk jamono ji lii di armeeri Touba yi itam laataa waa kër Cheikh isaa jenn di ko miire moom moo ko njëkk a def bardaas bi sëriñ Tuubaa 1903 jóge fa dem daaru marnaan ci rakkam ja maam Cerno Ibrahima Faati amoon na fa xat at ak kii di mbaaxaan ba tubaab bi duggoon ci ñu yóbbu woon ko ci réew mi di gànnaar yoon woowu bi seexul xaddim di dem gànnaar mi ngi jaare lii di njaareem fanaan fa xëy dem tuubaatul jaar fa dem tiwaawan jóge tiwaawan dem kel la jële saxaar ñu yóbbu ko ci dëkk bi di ndar géej ndar géej googu am na fa ay fan foofa nag woolu woon na fa kii di maam cheikh ngir mu ñëw fa sëriñ moor faati turé ma nga fa woon ci jamono jooju mu nekkee ci dëkk boobu di ndar kër gi seexul yenn yoro ab commandant la woon ci ndar géej kër yenn yoro googu la seexul xaddim nekkoon ci 1903 laata muy dem gànnaar foofu itam ñu bare bari ci murit yi fekk nañ ko foofu kër yenn yoro googu fi la maam cheikh anta fekk ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim seexul xaddim di ko wax ni la dégg naa mbaaxaan doxee na ma ginnaaw ba ñëw jaxase lii di kër ga ndax bi mbaaxaan di ñëw daaru mar naan di bënn si lii di gaal ga ak di xar si lii di sàkket ya fi fokku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ndax ku dikk keroog sëriñ njaareem lañ ko fanaanal ci benn société xam ngeen na ñëwug mbaaxaan googu sax histoire bu baree bari am na ci ndax ci la seexul xaddiim doon wax ne bis bu mbaaxaan ñëwee fii ci daaru marnaan kum fekk ngay nelaw gën a la yandoor ndax dara du xew kum fekk ngay añ lekkal ba suur ndax dara du xew kum fekk tim nga toog bul jóg ndax dara du xew ca yoon woowa sax bi fi mbaaxaan ñëwee te ginnaawu ku baax ki sëriñ Tuubaa seexul xaddiim sëriñ Mor Faati Ture ma nga fa woon ndax bokk na ci ñu mbaaxaan njëkk a gis foofu ci daaru marnaan di sëriñ Mor Faati Touré de ku ko yéem la ndax ngoon googu mu egsee woon foofu ci daaru marnaan sëriñ Mor Faati Touré maanaam rëfut jógul ndax la seexul xaddim waxoon moom la wéyal bu fi mbaaxaan ñëwee lu waaye fekk mu di ko def na ko wéyal ndax dara du xew mbaaxaan daana wax ne Mor Faati Touré mii mu gis de yorut fittu doomu soxna waaye fittu gërmi la yor maanaam doomu buur kon liitim mbaaxaan seedeel na ko sëriñ Mor Faati Touré ngoonu kër bu ñëwee daaru marnaan bi seexul xaddim na kër yéen na yoro woon fa maam cheikh anta te maam cheikh anta ñëw binduloo na lettre yenn yoro moomu ngir seexul xaddiim di xibaar lii di gouverneur bi xew-xew yi am ci daaru marnaan ak itim ni mbaaxaan fa séenee doxalee moom ngir sànku ko ak itim ginnaaw gi ko mbaaxaan ginnaaw ak lim koy tuumaal te dara nekku ci lool la seexul xaddiim doon leeral lii di gouverneur bi ca lettre ba maam cheikh anta mbàkke ak yenn yoro moom ñoo ko yóbbu ci bureau gouverneur foofu ci ndar géej gouverneur bi lii muy tuumaal ku baax ki dara amu ci ba mu xëyee suba moom gouverneur bi binduloo na lettre kii di Duudu Sekk Bon Maxtaar ndax jamono jooj moo koy bindal ay lettre mu di ko xamal ne na bind lettre mbaaxaan ci daar daar bi ngir di ko wax ne na moytoo delluwaat ci dëkk boobu di daaru marnaan ndax que lii muy tuumaal sëriñ bi dara wéru ci te bu fa delluwaatee lii di cuun ak état dana feeñ su boobaa ka nit ñi danañ comprendre danañ xam ne lii ñu defal sëriñ bi ay tuumay neen la na moytu jooju jéyee ndax cuun ak état bañ a feeñ lettre boobu ci loxoy seexu seexul xaddim ko tegaatoon ngir mu jox ko mbaaxaan seexul xaddim sëriñ moor faati Touré la ko jox ngir mu jox ko maam Thierno Ibrahima Faati maam Thierno Ibrahima Faati moo ko jox mbaaxaan kon lettre bi wàcce mbaaxaan ci fonction bi ko nguur gi joxoon sëriñ moor faati Touré moo ko ko jox waaye lettre bi tuubloo mbaaxaan itim sëriñ moor faati Touré moo ko yóbbu ndax benn lettre boobu kat moo sànq mbaaxaan ci wàllu nguur waaye moo ko defar ci wàllu diine ndax moo ko tuubloo def ko lii di ab murita bindee ci la sukkandiku nag bañ dàq mbaaxaan ci fonction yiñ ko dénkoon ndax seef de kantoo lañ ko defoon ci région de Bawal ginnaaw lettre boobu nag mbaaxaan sukkandiku na ci laata seexul xaddim di dem gànnaar nag ñëw na ndar fekk ko fa jaayanteeg moom tuub jéggulu seexul xaddim sax wax na ko ay wax yu baree bari ngir fàttali ko ko mbaaxaan di ko wax ne daal li am solo daal mooy tuub naa te jéggulu naa seexul xaddim nag mujj na ko jéggal ba tudde ko abdul xafoor li ëpp ci bare bari mbaaxaan mu jur seen waajur kon mujj na dabe mbaaxaan sax mi ngi ci armeer yu mag yi ñu denc mu yu tuubaay jërëjëf bàyyi cheikh abdul ahad mbakke waxoon naa leen na sëriñ moor faati ture am njàngam matul woon ndax kat ginnaaw bu waajuram wa génnee àdduna di sëriñ abdoulaye ture waajuram wam wi fi nekkoon di sëriñ du faati ture fop ko yit ko baneen waajuram bu ñuy wax sëriñ ahmadu maxtaar ture mareema ci dëkk bu ñuy wax lappe ci suuf si di cilmaxa dend ak dëkkub sëriñ Ahmadou Maxtaar Mbàkke bii ñuy wax kër ngànna mu nekk fay jàng laataa njàng may egg moom jóge na fa ngir ñëw ci nijaayam maam Cheikh Anta Mbàkke te bi mu egsee maam Cheikh Anta Mbàkke am njàngam da ko wax mu dem jaayante ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim te bi mu eggee ci ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim dane ko liggéeyal la laa bëgg Seexul Xaddim mi nijaayam nangul na ko ak njébbalam ba ba ko ci daara ji mu dem muritiju ba bi maam Cheikh Ibrahima Fall yeewi ko moom moo ko wuutu ca daara ja nekk jëwriñ ca kon am njàngam eggul waaye Sëriñ Mor Faati Touré ci ginnaaw bu mu demee ba sanc lii di ay dëkk fabuwaat na nag takkaatug deram wéyaalaat nag wut ñu koy jàngal ba dem na sax ba géeju lool ci wàllu alxuraanul karim ci bi muy jàng dem na ba sanc lii di ay dëkk dem na sax ba mujj nekk imaam ci dëkk bii di madinatu ngir firndeel na rek mujj na jàng te moo jàngal boppam te bi muy jàng samp na kër am na lépp ñu xam ne jàng du weesitim dem na ba sëriñ mbàkke busoo doon ko laaj ci yenn téere yi gën a xóot ci wàllu xam ngir naw sëriñ Mor Faati Ture te moonte moo jàngal boppam te bi muy jàngal boppam lépp am na ko kon ngalawaay nañ jàngi ndax du wees sëriñ Mor Faati Ture nekkoon ku yéeme koo xam ne lu mu masaa am joxe ko ba néew na mu masaa sanc nga ñëw fa te doo fekk mu bari muy laaj si kon nag royoon na nijaayam ja ca joxe ga ba tax na itam ku masaa jaaxle danga ko seet si moom sëriñ Mor Faati Ture nekkoon na itam ku maandu mu sa jaxase dara ak dara ba am na bi sax ab taalibeem joteeg beneen waay ñu fob leen di leen atte ca bureau chef de canton bu ñuy wax muudu liisa keroog bi ñuy laaj kenn ku ne kan mooy sa seede taalibeb sëriñ Mor Faati Ture boobu dane sëriñ Mor Faati Ture mooy sama seede kam jotee loon ñu fa yéene leen àtte kooku itim ne kooku mu tudd itim doy na ma seede te monte de yëf ya lépp ci yoon la jaar ngir maandu teem ku maandu la woon ba ñëpp defoon ko roy waay rakkam ji ñuy wax sëñ Balla Ture itim moo ko def lii di murit moo ko jëlee fañ leen yóbbu woon ñu doon jàngi indi ko jox ko ne yaayam ji kii di maam Cheikh Anta ba kii di sëriñ Balla Ture sax kii di maam Cheikh Anta Mbàkke faboon na doomam jox ko ko ngir naw ko kon sëriñ Mor Faati ture ku bëggoon mbokk la te ku taxawu ay rakkam la sëriñ Balla Touré mii sax moo nekkoon loxo nday jooru kii di sëriñ Mor Faati Touré ngirug jàmbaaram ko amoon taw feex la ndax kat lim demal yoon miin sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim ñi ko demal bariwul te lii di kafe itam moo ko njëkk tàngalal sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim sëriñ Mor Faati Touré wax na ne keroog bi muy njëkk a tàngal lii di kafe Seexul Xaddim moo koy wax ne defe ko nii defe ko nii ba ga la moom sëriñ Mor Faati Touré ba daana ko wax ne loo ma defal xàmme wu ma koog lu ma seexul xaddim defal lool sax moom moo waral bi maam Cheikh Anta Mbàkke nekkee ségu ci atu 1930 ba 1935 sëriñ Mor Faati Touré moo yoroon résime bi moo doon doxal kër maam Cheikh Anta Mbàkke kon mën nañu wax ne moo nekkoon premier ministre maam Cheikh Anta Mbàkke wuutu ko ci Daaru Salaam loola itim taxoon na cheikh yi maam Cheikh Anta Mbàkke yi kenn ku ne tudde na ko lii di doom ba itim lii di doomu maam Anta Mbàkke yi nañ ko lii di doom ba tax na saa boo gisee moor yi ci kër maam cheikh anta mbàkke sëriñ moor faati turé la ba ci ki toog toogaayu maam cheikh anta jamono ji di sëriñ moor mbàkke moom sëriñ elaaji tàkko mbàkke mi toog toogaayu maam cheikh anta mbàkke sëriñ moor faati turé lañ ko tuddee kon fukki moor yoo fekk ci njabootu maam cheikh anta mbàkke juróom-ñeent ya moom sëriñ moor faati turé lañ leen tudde doy loo googu ko njabootu maam cheikh anta mbàkke doy loo woon ba nijaayam ja ne ko loo ma defal xam mi wu mu ko lu ma sëriñ tuba seexul xadim defal loolu sax moom moo tax bi maam Cheikh Anta Mbàkke génnee lii di àdduna moo ko taxawu moo ko jullee moo ko defar geneen nijaayam ja itam di sëriñ Aafiya Mbàkke kàddu yi mujjee wax moom la ko dénk kon koñ doyloo woon la tax na kii di sëriñ Mulaay Buso di doomu sëriñ Mbàkke Buso defal na ko marsiya bu yéeme ngir di ko ca tàgg ci jikkoom ak melokaanam ak sëriñ Mor Faati Ture ni mu mel ñu teew lu marsiya bi ko sëriñ lay Buso defal ngir naw jikkoom ak melokaanam في الشيخ الحاج مور فوري رحمه الله تعالى ورضي عنه ولا تفدنا بلطفه ألا انتبهوا أن الغداء أبدا يجري ويسجر أرباب النهى أيما زجر تفاجي المنون مرة بعد مرة دواما وتختام الكرام على قشر فآه على فقد النجيب محمد فتنزيله الطوري المؤيد بالنظر سلالة سادات الكرام أجلة صلاة حداة المنتمين إلى غر لقد راح فخر سالم والسابعين مبوءا بمقحد صدق عند مولاه في القدر هو المنتقى المبرار صلب البسل والندى أمين الملا أكرم به من فتن بر تربى لدى الشيخ الخليل وسلمه لكل أقر العين في السر والجهر فهذا رضا الشيخين قاهر نفسه وباقي الأعادي سالموه بلا مقر فحق له صدق الإرادة خدمة وهبا بإهداء التي حاز من سخر شفي وشوفي تقي مطهر سني وسني ردا سالم الصبر سخي وصوفي تقي مطهر سني وسني ردا سالم الصبر فمن يفسد الأقوام دأبا يقودهم بأمر بمعروف ونهي عن المنكر ويدعو كتاب الله حق تلاوته ويعمر أصنع المساجد بالذكر ومن يكرم الجيران بالضيف والقراء ويصلح ساعة البين باللطف والنصر بهمته بنى المدينة في قفر تبوأها لله مغنى سوي البر وأسعدهم لكم في عرشهم بشهورها وروي من الورد المفجر بالحفر وقد حج bayt allah wa tamara al fata wa zara imam al muslimin uyu mooy marché bi ko sëriñ Moulay Bousso ibnu sëriñ Mbàkke Bousso defal ngir di ko ci tàgg ci jikkoom ak melokaanam seriñ Mor Faati Touré nag ci lool la sax di liggéey ba ni génne génnee lii di àdduna ci atum 1960 ci dëkk boobu mu mujjee sanc di Madinatu Touré nekk ci wetu dëkk bii di Misra foofu sax lañ ko mujj denc ci suuf soosu sëriñ Mor Faati Touré nag mi ngi génn àdduna bisub ajjuma fukki fan ak juróom ci weer wii di weeru tabaski ci atum 1379 ci gàddaay gi ajjuma fukki fan ak juróom ci weer wi di weeru tabaski ci atum 1379 ci gàddaay gi dëppoo muy vendredi 10 juin 1960 vendredi 10 juin 1960 ci dëkk boobu di Madinatu Touré tisbaari ajjuma jooju mu génn àdduna ginnaaw buñ ko yëgalee ki fi nekkoon xalifa général des mourides di Cheikh Mamadou Fadal Mbacké moo wax ne nañ ko fanaanal ba suba ca samedi ja mu xëy ca samedi ja woolu ku ñuy wax fàllu njaay na ko jëlal sab oto te dem ci kër cheikh abdou xaadir mbàkke wax ko mu dem madina turé ngir taxawu kii di sëriñ moor faati turé kon cheikh abdou xaadir mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xaddi moo taxawu sëriñ moor faati turé foofu ci madina turé lu ko jiitu nag sëriñ moor faati turé waxoon na taawam ba sëriñ cheikh madina turé di ko wax ne bis bu ma fi bàyyi koodee bu sëriñ moodu maamun mbàkke ñëwee yow lum dogal ci man daal noonu la noonee mu ko waxee woon taawam ba sëriñ cheikh madina Touré keroog bi mu génnee àdduna ba sëriñ moodu maamun mbàkke moom maam cheikh anta mbàkke ñëw laaj sëriñ bi kañ la génn àdduna ñu wax ko ko moom moo wax ne nañ ko denc ci madina ndax kan ngeen gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam ci dëkkam boobu di madina lañ ko denc te itam ci wetu soow gi lañ ko denc kon nag sëriñ moor faati Touré mii nga xam ne moom lañ ko duppee itim tem bi sallallahu taala wa sallam bi cheikh abdou xaadir mbàkke ñëwee itam loola la wéyal kon lii moo waral ñu denc sëriñ Mor Faty Touré ci dëkk boobu di Madina Touré ay xalifaam nag nii la tëddee ci atu 1960 ba ku ñuy wax sëriñ El Hadji Cheikh Touré ñu gën koo xam ci sëriñ Cheikh Faty Dem ndax waajuram kat ak sëriñ Mouhamadou Dem bu njaareem ñoo bokk benn waajur wu góor ak waajur wu jigéen moom sëriñ Cheikh Touré mii njëkk wuutu sëriñ Mor Faty Touré ñaareelu xalifa sëriñ Mor Faty Touré elaaji baara ture ibnu sëriñ moor faati ture ñuy ñaanal sëriñ baara ture ak ay rakkam ak mboolem njabootug sëriñ moor faati ture bi yal na leen suñu boroom bàyyi te taxawu leen te aar leen te yàggal leen fi sëriñ moor faati ture nag am na bis ñu koy fàttaliku muy fukki fan ak juróom ci weeru tabaski bi mu génnoon lii di àdduna màggal gi màggal nañ ko ay yoon ci dëkk boobu di madinatu ture ba ci xilaaf ak sëriñ tuuba seex saalihu mbàkke njaboot gi nag demoon fa doon yëgal sëriñ tuuba seex saalihu mbàkke lii di bi mu ñu bàyyi bis yooyu di ko màggal kero sax ma ngi leen di wax ni dëj dëjaat moom tëyeer yi sax ba nañ ko kon nag ba leen bis boobu te yóbbuwaat ko ci ñaar fukki fan ak ñaar mu nekkaat ay bis après bisu fukki fan ak juróomi ci wàcceem kaamil rek la yam bis bi nga xam ne nii nag mbooleem njabootu sëriñ moor Fati Touré moo xam jarbaat ndoo soppe am di jàmm ak képp ku ko bëgg nag bisu ñaar fukki fan ak ñaari nag la ñuy dajee ci Madina Touré màggal ko guddi ak nañ ci darajey sëriñ Mor Faty Touré ka maam Cheikh Anta Mbàkke waxoon ne loo ma defal xàmmi wu ma koog lu ma xaadim rasool defal na ñu ko yàlla fayal te yokk ay leeram te guddal fanu njabootam gim fi bàyyi li di jafe-jafe réew mi tim na ko